mais bi gis nañ ñi ngi jéem a communiquer. waaw d' accord bon c' bien de communiquer. Mhm. mais il c' est bien aussi de communiquer euh, des urgences du moment. Mhm. il ferait mieux de communiquer sur sur l' emploi il ferait mieux de communiquer sur <laughs> l'immigration clandestine. Mhm. mais il ferait mieux de communiquer sur les jeunes médecins qui sont diplômés et qui n'arrivent pas trouver une insertion les jeunes pharmaciens qui sont diplômés qui n'arrivent pas trouver une insertion les infirmiers ñooñu ñu wax ci jeunes yi nga xam ne ne Jakarta rek la ñuy dawal mooy seen liggéey parce que amatuñu beneen liggéey ñu wax ci jeunes yi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy dañuy ambulant Yves Yves revendication daf ko daf ko neex une minute laa waxoon qui passe euh, Sané defe naa ko. yaa ma formé en une minute yaa ma formé déedéet tontu na ko ko yaa ma formé jeex na wax bi jeex na. Euh, waaw loolu dañ exercice bi dañ koy saluer. Mhm. parce que quand même c'était c'était c'était attendu. Mhm. et c'était voulu. je pense que c'est beneen beneen beneen déclic la hmm. bi président de la république bëgg a jox son orientation et l'action gouvernementale te lu ci am solo mooy maintenant ce n'est plus devant la représentation nationale comme ça se hmm. faisait hmm. avec les passages de maintenant c'est avec la presse léegi maintenant gars yi wax nañu ni ki format bi war nañ ko xool alléger un peu. le dispositif pour que question yi ñu mën a dem en profondeur. yooyu je pense gouvernement bi tam dina ko jàngat pour xool solution. man de je pense ban àjjuma bi passé dégg may wax euh, ministre Alioune Ndoye wooyee. may doon def plaidoyer boobu di wax que ni dañu war a ñeme. chaque jour je le dis. et je pense que loolu c'est important maintenant lu bees la man je salue mm. parce que lu bees la maintenant am lañu war nañu améliorer euh, mbir euh, bi. mais nga. dafa am mbir moo xam ne li ñuy waxtaanee fii. Hmm. yëpp soo gisee ministre yi ñëw ba dóor costume yi ba dóor cravate bi. ça ça renvoie. question la ça renvoie à quoi. dafa am opportunité yoo xam ne soo ko amee da nga war a wane dara loo xam ne day inciter nit ñi ni gars yi gën a xam nga. nañu gën a nañu du ñu ay français. xoju geeg dugg na si génn fii ndax affaire bi gën a accessible pour que askan wi koy seetaan <coughs> ñu mën a gis seen bopp ci ñi leen jiite. dafa am solo mais on est trop truc je pense que suggestion bi may dem mooy mm. nañu xaw a gën a. oyof oyof. ku nekk solo lu la neex. man maa la tontu loolu tontul leen. ay ci benn rêve rek la am. wax waxeet nga def. waaw waaw par rapport communication bi un jour. Euh, palais présidentiel envoyé ay accréditation à la presse. Mhm. ñu accrédité des yoo xamante ne saa yu ñu xëyee ils vont à la au palais. Mhm. chaque comme la Maison Blanche comme à la Maison Blanche président ñu rendre compte wax en trente. waaw da yow de yow. sëñ bi loo Moussa sëñ boo dee. déglu leen waay bu fekkee ne da ngay def di ngay liggéey te li ngay liggéey am ci lu bari lu mën a nekk kumpa. Mhm. leeral ko wàññiwul dara. leeral gi nag bu mu am limite. journaliste yi ñëw it bu leen tànn. Hmm. na ñëpp am liberté wu dikk ku nekk lam xalaat mu laaj la ko te tontu ci. su demee noonu rek jàmm dinañ béy. jàmm nañu ay ca beneen gis-gis bi si topp euh, football ñaar yëpp yi ci des football la alors ñu jiitee bi nga xam ni voilà Diego Armando Maradona euh, faatu na rob nañ ko démb ak euh, ni mu toll woon ci wàllu football ci àddina bi muy loo xam ni Papis une minute. ñaari affaire dama gis titre bu musul gis. Mm-hmm. l'équipe mm-hmm. gis mm-hmm. naa Dieu est mort je mm-hmm. crois que la seule personne bu am titre boobu après Sow man mosuma dégg nit dee ñu ne Dieu est mort beneen bi non c'est des choses qui m'ont frappé parce que xam naa li si wax mënatuma si dolli dara il est un libération dieu. céleste waaw ouais, il est un dieu il est un dieu en un roi en dans le <coughs> Papis dóor na la. waaw non dóor na ma mais parce que moom laa c'est-à-dire parce que bon amu ñun dañu dañu bëgg football quoi. mais wax fa dëgg yàlla. Euh, waaw dafa mel ni koo bokkal moom moo dem. Ah, vraiment per du perdu quelqu'un boo xam ne dafa mel ni danga koy seetaan nga xam kii ni sa yaram dafay daw vraiment li mu ñu defal li mu béggal ci xol yàlla na ko ko yàlla fay. Hmm. malal maa ngi koy jaale Buru Chaga. Hmm. Eh. Emiliano. waaw man. oui loolu nga bind gis naa sa post ah. ñu ngi koy jàll. Sané. waaw football bi yëpp. Hmm. Euh, di ko jàlle tous les icônes parce que ñun suma génération ñun nga xam ne euh, football. maanaam daanaka ci lañ naroon tekki. Hmm. Euh, kon ayoon nga noonu. Koulibarly la may naroon non non kii kii la kii la laa amoon moo tax. libéro ban poste la double fracture moo ma teree nekk équipe nationale. ah oui Yves mi xam na ban libéro ban poste la man maa nekkoon seen capitaine équipe. ban li ban poste la milieu terrain. seul milieu. non kii latéral la ne nan non. <laughs> fan nga man double fracture man. oui mais avant moo ma teree. mais man tey jii su ma maanaam pour pour jox la benn jàngat su ma su ma nekkoon ci football ba léegi. heure bi maa ngi équipe nationale sama noon d'empereur Rui Costa la Rui Costa. oui ma pour Charles dugalee oui Rui Costa waaw final wax nga dëgg. non Sané wuy ma. équipe nationale c'est adjugé. allez allez allez. non bul fi convoqué. Zale. Euh, Condé. Condé la weer fii. Condé dina mën a sëñ la je te rek Charles calme. mais léegi Der dafa am benn du ma lay laaj. dama la koy laaj solennellement. solennellement. doo ñu dimbali. élection yi paase na. Uh-huh. doo ñu dimbale. Condé ñëwaat. <laughs> s'il te plaît Zale. on est waaw ñu ngi ñaanal Maradona Maradona xëy na yàlla xaale ko ajana parce que ñun ñii nekkoon ñu bëggoon football parce que man maa ko wax wax wax naa ko sànq sama njàng daanaka moo ko xawoon a yàq.

rek nga bëggoon neuf la zale et eh, zale même yow mais YouTube boo fa demee mun nga seetaan Maradona dafa am lu ma ko ci dolli da ngay laaj ci université soo soo demee université nga laajte ma kan mooy Pipo Inzaghi ñoom gars yi eh, xam nañu ñu laaj sëñ Moustapha football bi kii nga ci football bi ban man nag euh, xam nga football moom ñoo koy seetaan lu bari box ah box <laughs> ah, macha allah kon yow Tyson buñ la la ñoom Mike Tyson lu bari waaye nag wax dëgg yàlla Maradona defoon na lu baree bari ci football vraiment daal euh, yàlla mayoon na ko ci. Mm-hmm. moo tax ba léegi rek li tax xale yi war a rewee ci la bokk. parce que dafa mel ne nitu banlieue la. comme dëkk fu xeebu la. merci bidonville fu xeebe la. merci xoolal tey xoolal tey lim am moom rek ko am. il faut rêver. dëgg la il faut bi c'est le président Augustin Senghor il est candidat euh, pour euh, nekk euh, président CAF d'autant plus que dafa yamook ka fa nekkoon dañ ko aj cinq ans Ahmad Ahmad doomu Madagascar la. FIFA aj na ko juróomi at yoo xam ni du mën a bokk ci lenn football Maître Augustin Senghor nag euh, moom nee na candidat la ci élection bi ñu dëgmal. bu ah man je pense que dañ ko war a jàppale bu baax. Hmm. Euh, mu bañ a aussi yem que si autorité yi. Hmm. je pense que na na na population bi. àndal donc ni mu demee di seetaan seeti autorité yi. Hmm. na ko jaxasoo. peuple bi. c' est important Malal war na ñëw sa koñ. ah gars yi recevoir. même si Malal amul droit de vote. waaw mais pas droit de vote. xam nga il faut que ça xam nga engouement populaire waaw loolu dafa am solo. dëgg kon yow Aïcha Charlie Malal wax nañ li mu ci waroon a wax. ñooy parce que lu ñu def tey. Euh, Maguette je passe à on parle de Foutima. Ansou lan nga xalaat ci euh, Augustin président de la CAF il est candidat.

sëñ bi waaw ñun ñoo ngi ñoo ngi ci ginnaaw vraiment ñoo ngi ci ginnaaw kon waaw ah non non ku ñu jël Sénégal kon wax bi jeex euh, Franco laay na sëñ Moustapha Lo euh, euh, vraiment dañ lay gërëm particulièrement première partie gu ku fi indi woon mu am séminaire fu sori war a dem foofu may xoolal toog fii